que vous êtes dans votre rôle quand vous réclamez la libération d'un homme politique candidat à l'élection présidentielle et pas n'importe quel candidat euh, incarcéré am na démocratiquement lu bari lu ko mën a justifier mais bu fekkoon ne Ousmane Sonko état du Sénégal rek la la la joteel nga demandé lool ça ne gênerait pas mais nan ngay nekkee un défenseur des droits humains Ousmane Sonko nekk un citoyen sénégalais jote ak une citoyenne sénégalaise sénégalaise en l'occurrence Adji Sarr nga ometre loolu yëpp faral mel ni euh, kuy plaider la cause de de de de Ousmane Sonko. yow tu ne me suis pas Sonko déjà en mars 2021 man dem naa këram ni ko demal répondre à la justice gisuloo ko. si. voilà mu ngoog je parle pas de mars 2000 je parle pas de je parle je sama der sama publication yi ma mujjee def kii sax génne na ko danaa ko pour ta propre crédibilité demal nga répondre à la justice am na télévision yoo xam ne dañ ko génne dama ko bind ñu génne ko donc loolu jarumaa wax mais bu ñu waxee Adji Sarr Sonko malgré tout li nga xam ne teg nañ ko ko muy tuuma bi mais. tribunal euh, tribunaux yi reconnaître ñu ko la justice ne l'a pas reconnu mais condamné problème mu viol bi mais condamné nañ ko waaw ñu ko condamné tam bon euh, bu fekkee ne def nga ay études liir naa lu bëri ah mais su fekkee ne atteindre nga majorité 18 ans amul sens corruption de la jeunesse bu fekkee ne am nga 16 ans 17 ans oui mais dépassé nga 18 ans mais amul sax amul sax sens c'est-à-dire que aussi kooku ci biir kii bi sax nekk ci woon ñu jël jël mel ni dañ ko jël dugal ko ci biir c'est-à-dire que problème justice que ñu wax ñàkk a wax am nañ ci ay problème yu rëy a rëy rëy te ko yooyu bés bu ne ñu ne il faut ñu am une justice indépendante tey rek laa liir tey laa liir benn magistrat bu mag waaw jar naa nga xool nga liir ko ci li muy wax ci éthique li muy wax ci indépendance de la justice c'est extrêmement important du même du moom rek yaa Aziz Diouf bu ma déglu extraordinaire la def sur la question de l'indépendance de la magistrature ci chronique yi nga xam ne moom la euh, Felwine Sarr di def donc man je passe tout mon temps à lire ces choses et je travaille avec le magistrats ñun on travaille avec les magistrats depuis ñu juddu mais mais mais mais ci. su ma la su ma la déggoo ci gën a rëy ci li ñu def sur l'indépendance de la magistrature su ma la déggoo dans l'affaire Adji Sarr euh, Ousmane Sonko jàpp nga ne y a un problème d'éthique et d'indépendance. écoute problème muy problème Adji Sarr Sonko on a eu des problèmes ils ont des problèmes de justice muy problème kii di. Mame Mbaye Niang. waxuma sax Mame Mbaye Niang dama ko dama ko kii dama ne bu Karim bu Karim bi ñu jëlee CREI dinaa leen attention dama bind sax. ni ko attention kii boo ko defee buñ ci jëlee décision duñ ko reconnaître et ça n'a pas manqué te pourtant demoon naa seeti Karim biir prison mu ne ma du ma recevoir <laughs> bi ma waxee loolu ba pare Karim m'a envoyé tous ses tous ses avocats fii affaire kii nu mu tuddati aussi euh, Khalifa Khalifa y a eu des problèmes parce que bi ñu ko jëlee di ko yóbbu avocats yi ñëw dañ dàq avocats yi. mais loolu moo ko boo indi aussi problème bi nga xam ne mais ni nga taxawoo Ousmane Sonko taxawoo ko Karim Wade. si taxaw naa ko laajal Karim. <laughs> laajal Karim ndegam taxawuma ko. et euh, laaj Karim même ci affaire Karim Wade bi ma rek da laaj Karim laaj avocat nga laaj kii di Khalifa sal laaj ay avocat Khalifa ba mu paree dafa ñëw ba Africa Jom Center ma ci ñu mu gën a remercier la bokk Khalifa amul kii boo xam ne def naa ko te te demandé wu ma ñu libéré ko. ñoom kii le maire de Dakar la yónnee ak ñoom ñu ñëpp ñu ñëw ñu remercier ma fekk ma fekk ma sama bureau wax ma ko ma recevoir tous ces avocats temps boobu maa ngi Amnesty International ak ñoom taay c'est que ni may taxawoo ni may taxawoo euh, ñee noonu laay taxawoo ñëpp. mais mais mais xam nga léegi nag c'est un problème de pouvoir énorme c'est c'est ça loolu xam naa ci dara parce que xam nañ ma rey ndax problème mu pouvoir. c'est pas seulement eux je on m'a tapé ici le 23 juin xam nañ ma rey mais c'est des c'est problèmes de pouvoir ñoom tam li ñuy wax c'est des problèmes de pouvoir loolu la mais moi j'ai pas changé